min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xaala rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngi leen di nuyu fu waaye mën a nekk moo xam yaa ngi ñuy seetaan bi nga xam ne mooy nuyu bi nga xam ne moom la suñu borom santaane ci diggante jullit ak jullitam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu dikkaat ak yéen nii seen émission tey xam-xam bi ñëwaat nag ci gan goo xam ne daloon nañ ko ci émission bi waaye dootuñ ko présenté kenn waaye xam-xam moo dul doy te nit saa soo nekkee ci àdduna nekk ci société bi di dimbali ay doomaadama di dox ci loo xam ne lu yàlla gënu la lu yonent bi gërëm lu Sëriñ Tuubaa gërëm la duñu doyal ci yow saa suñu amee occasion ngir fekk si la waat la dañ lay fekk si la jël li nga xam ne moo ne ci yow ngir yé ngir yéene yi ñi nga xam ne ñooy seetaan mën cee jariñu tey nag ñu dikkaat fii kër Cheikh Ibrahima Diop dootuñu ko présenté kenn fii ci mi nga xam ne jot nañoo defal émission tey dikkaat nañ ci moom fas yéene defaat ak moom beneen émission boo xam ne bokkul ak bi ñu defar ak moom ca xam-xam bu yees pex boo ne dina fi génne ci kàttanu yàlla incha allah rabbi ñoo ngi ñaan suñu borom dimbali ñu ba liñ bëgg mu génn lépp mu génn te bu génne ñëpp jëriñoo ko balaa ñoo dugg ci waxtaan wi nag dama koy bàyyi mu nuyoo su ko defee ñi nga xam ne ñooy seetaan ñu mën a xam ne kat tey jii émission bi spécial émission la kon Cheikh Ibrahim maa ngi lay nuyu di la siyaare di la bàyyi nga nuyoo. alhamdulilah rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله kon dañuy sant jullit yëpp di sant suñu borom di ñaanal ñëpp di yokk ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jógee. muy ñi nga xam ne ñoom fi jógee tam barsax. rawatina sama wasila ba bay Abdou Rasulullahi ak ki nga xam ne mooy sama waajur bu jigéen Aminata Sarr. ak ki nga xam ne mooy sama papa Kandé Diop. ak ki nga xam ne mooy sama tante di Penda Ba. di leen ñaanal ñoom ñëpp si barke weer bi nga xam ne ci lañ nekk nii. muy màggal li ñu jógee ak gàmmu gi. ak bésu baay Abdu Rasul bi yàlla wëccal leen ay xéewal xale leen àjjana ak mbooram julli di nekk bargèr ci barke alxuraan di leen wax wa aleykum salaam wa rahmatullah ah, ma fàttal leen seen émission tey xam-xammee moom lañ leen dalaatal kayit fii kër Cheikh Ibrahima Diop fas yéene dugg moom nag ci ay waxtaan Cheikh Ibrahim biñ la fekk si ay waxtaan nañoo ak yow ah, jot nga ñoo présenté sa cosaan waaye bëgg nañ nga nga fàttaliwaat ñu ko ngir ñiy seetaan mën a xam maanaam maanaam fan mooy cosaanu Cheikh Ibrahima Diop. waaw xam nga comme ni ma leen ko waxee rek sama cosaan ci wàllu sama waajuru góor ay alpulaar lañ. Mm-hmm. fekkee nag sama wàllu waajuru jigéen la. Mm-hmm. jolof lañ fekk baax. Mm-hmm. ndax alburi suñu maam la. waaw d'accord. ah loolu leer na ci nga xam ne ndax doomu aadama moom ah, bu ñu koy gis ci réew faw faaw day day baax ba am na ci ñoo xam ne dañuy bëgg xam. am ñoo xam ne dañuy bëgg indi ak mbokk ndax Sénégal moo moo moo bindee noonu ndax indi man moom ñu doon xaw ma daanaka fii la firi ko moo tax day am solo ñu bëri maanaam di di mën a xam sa cosaan mën a xam sa taxawaay ci réew mi kon nag ñu dugg ci biir waxtaan yi Cheikh Ibrahima gis nga fi réew mi toll tey maanaam nga xam ne tey saharal fasaadu gi yàlla waxoon fil barri wal bahri maanaam mbon bari na xeetu bari goo xam ne ci réew mi tey mënoo xàmmeeti ku baax ak bon te nga gis Serigne Sidi Serigne Sidi Mokhtar maanaam kaddu yi mu yëkkati ci màggal gi maanaam yow noo jàngatee kaddu yooyu ndax wax na ak ndaw ñi wax na ak waxambaane yi wax na ak mag ñi wax na ak ñëpp maanaam yow noo jàngatee kaddu yooyu yow mi nga xam ne maanaam sa taxawaay ci réew mi tey da bokk ci liggéeyu Serigne Touba yi da ngaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy liggéeyal Serigne Touba ci ci ci xitma di dimbali ay doomu aadama da nga caa bokk tey te ji nga toll ci réew foo xam ne dootuma dootuñu présenté kenn maanaam noo gisee na yow maanaam ni Sëriñ Sidi Muxtaar waxee ci maanaam màggal maanaam noo ko jàngatee. kon li ci santaat yàlla rek ñu suñu borom dimbalee ba ñu fekkee ko ndax xam na ñoo xam ne daaw fi la leen fekkoon dañu fekku leen fi te du ñàkk ne dañ ñàkk defal dara suñu borom wala am luñ ko defal ci coobare suñu borom rek la neex mu bàyyi ñu fi kon liñ ciy njëkk def mooy sant ci suñu borom ci lu ñu ko fekkee loolu setteelawaal ci suñu borom ci li mu fi bàyyi sëñ Sidi Maxtaar ba mu mën a def loolu xam nga sëriñ Sidi Maxtaar moom moom moo fi nekkal sëriñ Touba kon moom mooy sëriñ Touba koo xam ne nag da wax ni bu fi sëñ bu ma gisoon sëñ Touba bu ma sëñ teree ma bàyyi su ma santee ma def bu sëñ Sidi Maxtaar defee une déclaration am loolu la sant da nga ko war a def am lu la tere da ko war a bàyyi ndax loolu da boo ci saxee nga xam ne yow de yaa ngi nekk ci ndigalu Xaadima Rasul ndax ndikal moom mbëggal loolu ci fekk ni nag bu joxee ndigal topp rek moo ci war te xam nga sëñ Sidi Maxtaar déclaration bi ci jiitu mooy wane ni jullit yëpp benn la moom taxawaayu Xaadimu Rasuul la taxawee ndax damay wax ni Sëriñ Tuubaa ay mbiram du mott du phénomène dafa taxaw taxawaay yonente bi alayhi salaam jullit yëpp nag ndax bu ko tubaab yi laajee ñan ñooy sa njaboot jullit yi la wax ba ko ba muy ñaan suñ borom pour mu jéggal aussi jullit yëpp loo xam mu jéggal leen kon sëñ Touba wootewul confrérie yi moom li mu woote mooy tarixal islam donc islam la taxawee sëñ Sidi Maxtaar nag déclaration jullit yëpp xam waxal amul xej bi amul seen ku ci génnee sa bopp nag yow yaa ci génnee sa bopp mais moom génnewu ci kenn mu def déclaration bu am solo jàngaatal nit ñi indiwaat leen li ci jiitu mooy topp ndigal bàyyi tere topp ndigal boobu si jiitu mooy topp say ndigal waajur topp sa top sa ndigal ki nga xamne mom la yakkar aduna hmm. ak àlaxira hmm. bu loolu weesoo mu indul liggey hmm. ndax liggey moy lepp ci kaw suuf di da nga war sa ñaq yalla nak moy may waye da ngay sabul sabul lu moy mooy liggéeyal mu santaane birub liggey indi ci lan mo yërmande ndax yalla dañ won yonente bi alayhi salam bindu ma la pour ngay tolxal ben jam kon nak waxantuma la kenen keneen jullit yi am yërmande sen bir ña am doole dimbali ñi amul war ñi amul doole ñi amul doole aussi wet ñi nga xam ne am nañ doole ndax yàlla moom moom ay yëfam mooy def lu ko neex moo may ñi xañ ñi waaye ci biir loolu daf la wax dimbalante leen mu ndiwaat dimbalante si suñu indi indiwaat leen maandu suñu borom dana la nit boo ko xamalee safaan sax bu ko nettali waxantuma laay loo xam ne da koy sos nit ku nekk say mbir bopp war na lu dox day ay ndax koo gis muy dox ci kaw suuf rek def na loo xam ne bu sañoon moom boromam rek ñoo koy xam te suñu borom mi ngi lay sutura kon nag doo bàyyi say mbiri jàmbur di weer jàmbur loolu yàlla su la ko sant sëñ Sidi taat indi laa toll ñu loolu bi mu jógee ci loolu nag mu indi indiwaat leneen li nga xam ne mooy am solo mm. mooy tax ñu wax ni mooy tund leen fo fo bi fo fo bari na de ci réew ndax sëñ bi dafa am loo xam ne dafa am importance mm. xam nga sëñ bi dafa wax ni nañ moytu fo bi mm. wàññi ko buñ ko mënee bàyyi ñu def ko xam nga sëñ bi nag bu defee déclaration boobu matul ñaari fan nga gisaat gars yi lañ nekkoon ñu continuer si di continuer seeni i di def la ñuy def di wax la ñuy wax exemple comme nan nekkaat ci lañ nekkoon rek di tëjee ci télé yi di wootee jël xale yi di leen wayloo di leen def loolu kenn xamul te loolu sëñ bi daf ko tere léegi nag boo nee sëñ bi nga yaakaar sëñ bi ne bàyyi leen lii nga lànk ne yow bàyyi woo mais loolu yow yaa génnee sa bopp ci sëñ bi mais sëñ bi moom li mu wax dafa leer nañ léegi mooy solution bi ngir ñu mën a maanaam dem ba li maanaam xalifa général bu waxee li mu wax ñëpp defe na ko xam nga loolu loolu loolu moom yombul parce que xam man dama yaakaar ne tey ki nga xam ne mooy sëñ Sidi Maxtaar bu defoon déclaration ci rajo yi wala télé yi xamal ne leen ne kat mayatuñ benn waykat mu taxaw ci ay boîte de nuit di fa tudd Xaadimu Rasuul wala njabootam kon lu bëri sëñ bi dina dañ loolu moom dañ koy ñaan sëñ Sidi Maxtaar bu ko mënee def mu def ko ndax loolu bu ñu ko defoon lu bëri dina wàññeeku sëñ Sidi Maxtaar bu ko defee Cheikh Ahmad Tidiane def ko Cheikh Ahmad Tidiane def ko yeneen xalif yi nekk yëpp def ko sëñ bi lu bëri bëri leen wàññeeku waaye am na loo xam ne nag bu ñu ko def defulee ñoom dañuy jàpp ne lii daf leen di neex parce que nit nag loo jàpp ne lii neex na ko mais loolu nga koy defal ba nga mën am li nga am ci moom mais sëñ bi képp ko ko xam déclaration bi nga xam ne mu def ni ci màggal yi jaarale ko ci porte parole ba muy sëñ Bass Abdou khadir ñun ñëpp ñu koy ñaanal nga xam taxaway bu taxaw bu rafet la taxaw ay déclaration ku ko dégg xam ki dégg na waxi mag ñi diko gëna ñaanal yalla di gëna ñaanal ki nga xam moy sama xarit di sama lepp muy sëñ Cheikh Thioro Bassirou ndax ñom ñu ñu seqee sëñ bi dafa rafet té lool moy lu am solo ndax Sëriñ touba ay mbiram ñun ñëpp ñoko ko bokk bëggoon naa foofu euh, maanaam la sa digënde ak sëñ Cheikh Thioro ndax sëñ Cheikh Thioro xamna taxaw ngeen lool bëggona xam sa digënde ak moom ak foo leen xamante waaw xam nga seen Cheikh Thioro moom mën naa wax ne yàlla moo ñu boole. Mm-hmm. ba ñu yàlla boole dafa mel ne maa moom ñoo bokk ndey ak baay te noonu dama ko waxee. dama Cheikh Ibrahima mu ne ma mu dama bëgg nga jàpp ne man ak yow ñoo bokk ndey ak baay. fépp foo teew mën nga fa teewal. Mm-hmm. loolu la ma wax ne ma fépp foo mën nga fa teewal fépp fu mu war a teew aussi li sépp mën la yónni ma dem teew fa. kon nag maa moom yàlla moo ñu boole ñu mel ni ku bokk ndey ak baay. Mm-hmm. mu nekk ko ma naw jikkoom aussi yu weex yooyu muy sol loolu moo nekk ci moom te dafa yàgg ak sëñ Sidi Maxtaar di ko félicité nag ci livre bi nga xam ne bind na ko sëñ Sidi ndax sëñ bi ki boo ko jegewul mënoo ko xam te sëñ Cheikh Thioro dafa jege sëñ Sidi ak moom xam lu bëri ci moom kon nag dañ koy ñaanal yàlla ci barke alxuraan yàlla gën ko dëppale rawaxaan ak rawaxaan ak sëñ Sidi Maxtaar yàlla gën leen boole sëñ Sidi Maxtaar di ko taxaw fu mënti nekk àdduna ak alaaxira bi barke Seydina Muhammad alayhi salaam ba naa li nga xam ne nag sëñ Sidi Maxtaar naan la ko fi mu nekk nii nga xam ne mi ngi koy defoon ñëpp teg ci seen bët ak képp koo xam ne jàpp nga ci ndax loolu mbiru Sëriñ Tuubaa lu si nekk rek Sëriñ Tuubaa moo ko bindoo ne jabalu nangam bu amee ñi nga xam ne suñ borom moo leen ci boole pour ñu mën a eggale jëf jooju koo xam ne jëf nga ci rek jàppale Sëriñ Tuubaa mi moo xam na kon yàlla suñu borom euh, dina ànd saxal seen ànd indi ci ay si barke Sëriñ Tuubaa Xaadim bëgg na waxtaan ci actualité ndax gis nga réew mi fii ñu toll Euh, dina am lu ma bëgg ñu waxtaanee ko xam naa loolu sax bokk na ci li gën a neexal émission bi waaye loolu lay doon. Euh, gis nga barki démb yàggul dara ñu doon teg xeeru Touba. diggante Thiès ak Dakar. autoroute à péage maanaam noo gisee teg xeer woowu ak noo gisee noo jàngatee waxi suñu Abdou Khadir mel na ne wax na ci at yi xeetu waxin woo xam ne ba. gis nga maanaam mbooloo mi nga fa ne fa nekkoon na doon yuuxu nga xam ne kon taalibi Serigne Touba yi addiya da leen ñor gis nga Cheikh Béthio sax ci télévision mu yëkkati ay loxo na kat aw murit moom maanaam bu bu génne coom dara dootu fa desati maanaam noo noo jàngatee loolu yow. waaw xam nga loolu ci li ma koy njëkkee nag mooy di sant Serigne Béthio nga xam ne sama sëriñ la xarit la sama papa sama lépp la ñu seq lu bëri aussi ak moom mu jàpp ma def ma doomam def ma xaritam daf ma conseillé ma koy santal nag ci màggal gi nga xam ne moom lañ jógee ndax lépp lu mu ci def def ko ci gàmmu gi rek Serigne Touba dina ko fay sëñ bi yàlla dina nga jox benn doomu aadama mu lekk moom ma gënal nga tabaxal ma téeméeri juma te sëñ Béthio ku ko xam xam ne ci loolu lay loo xam ne sëriñ Saliou def na ko yàlla ko suñu borom ko mu jëriñoo ko jëriñ ña ci ay njabootam ci barke alxuraan di ko ñaanal et lépp loo xam ne natt la bu wàccoon ci moom suñu borom teggil ko ko ba mu set teggil ko ay taalibeem teggil ko ay njabootam ci taw wax na wakkaran si ndim gën a gaawee ci barke alxuraan di ko gën a firndeel nag suñu cofeel ak suñu xaritoo ak moom ak suñu kóllëre xam nga affaire addi adiya li ci sëñ bi wax rek loolu moo am sëñ Bass Abdou Khadre dañ koy sargal ci loolu ndax yaakaar naa firi la ko te leer na ci bopp ñëpp xam nga sëñ bi am loo xam ne dafa am solo comme nan xam nga boo ko jëlee nga defal ko ni respect la en plus loolu respect la en plus te xam nga dafa baaxoo man de noonu la ma yàlla bindee man képp koo xam ne féete nga ma mag rek duma ma la nuyoo ay loxoy kese su ma lay nuyu dama lay jox adiya lenn laa si jublu moy nit bokoy nit am lo baye ci ay loxom xolam du na sedd sedd koku muy sedd ci biir xolam suñu borom daf la koy fay. kon bu dul lool rien que pour loolu rek dafa doyon ci ñu joxe addiya waxantuma la nak sëñ bi dafa am lo xamne dafa am solo ndax addu bi ngay jël di jox sa señ da koy xam loolu rek que ni li lay jox ni yaakaar la ci yow da sëñ bi xaalis dafa neex te ku si nekk alal dafa sax ci borom donc boo ko jëlee di ko jox doomu aadama kam koy jox noonu yaakaar nga ko. waaye dama ne rek xam nga sëñ Tuubaa dafa am lu mu wax ne ay mbiram moom buñ ko xoolal buñ ko tontu ndax lépp loo xam ne war na ko si def dina ko def lépp loo xam ne war nañ koo réglé dina ko réglé kon nag ñun gëm nañ ñun ni ñu gëm ñun taalibe Xaadimu Rasuul yi gëm nañ ne addiyee lu am solo la gëm nañ ne addiyee ci suñu xol la nekk te kenn mënuñu la joxe addiyee kon nag dañ ciy sant suñu borom di ko ñaan muy jox rek li ñuy joxe te ñu suñu addiyee yi ñuy joxe waxuñu sëriñ bi rek la ñuy jox ñun jullit buñ gis rek dañ jàpp ne lañ la war a jox ndax nag laa ilaha illallah muhammad rasulullah la ñuy wax ñun ñëpp donc ñun kër gu ñu dem rek dinañ fa joxe suñu addiya te xam ne li ñuy def nii suñu borom dinañ ci ànd insha allah léegi noo gisee teg xeer bi loo ci waaw xam nga teg xeer bi moom mbiru Serigne Touba xam nga Serigne Touba bu muy liggéey di wut Touba am lu mu ci digle ak ci santaane xam nga ne Touba gi suñu borom dina ko defal loo xam ne dina yéem ñëpp kon nag ñun jàpp nañ ne lépp lu am tuubaa rek Serigne Touba waxoon na ko démb tey doogu ñëw dinañ ci sant nag le président Macky Sall ndax yàlla ci loxoom la ko jaarale mu nekk nga koo xamante ni moom moo ko fay def ak ay partenaires kon nag dañ koy santal suñu borom foofu noonu loolu nga xam ne def na ko si di ko si ñaanal aussi nag ndax mbiru Sëñ Tuubaa képp ku si def rek képp kuy jullit dafa am droit ñaanal kon ñu koy ñaanal ci kàttan suñu borom ni nga xam ne moom la àndandoo ak Sëñ Sidi Maxtaar tek premier pierre bi yalla suñu borom dimbali len ba baye ñu fi baye len fi bu autoroute bi egg ba ñëw diko inaugurer wat ñun ñep ñu fekkee ko kenn bañ fi jógee ci barkat Seydina Mouhamad alayhi salaam waaw euh, jërëjëf Cheikh Ibrahima Diop ci loolu nga wax ci lerna ci manam tagum xel ñu mel Serigne Touba ko sàkk woon ci ci ci suñu borom jaar na ko ci sangam ba soppem ba xaritam ba Seydina muhammad sallallahu alayhi Wasallam, nafsi wa dini <clears throat> suma ahli waloolat wa maskani lak wa jihatul abad kon loolu lépp ma nga biir fuwaa <clears throat> nafs yi sama bakkan wa diini ak diine ji suma ma ëhli topp samay ñont mooy taalibe yi wala wala ak samay doom ba maskan yi ak sama dëkk bee di Touba lakk wa di xatul ab dénk naa ko yàlla te suñu borom maa ngi lay ñaan dëkk bi di Touba na ko def muy mu mu nekk ngën bi dëkk comme madinatul munawara kon loolu leer na ci maanaam Serigne Touba ñaan googee mu ko ñaan tey day mel ne dëkk boobee tey dem nañ ba Touba boo fa duggee day mel ne màkkatal mu karam nga nekk donte Sëñ Tuubaa dem na boo xam ne sax boo amee yéene aji màkk te amoo paas bu la yóbbu màkk boo duggee Tuubaa am yéene am yéene ja rek aj nga kon loolu maanaam yërmande la te euh, li nga ci wax leer na waaye balaa ñoo sori ci waxtaan bi euh, am dof boo ko rombee mu wóor ne kii daal dof am na lu ne ci moom lu ko yëngal la ko dof loo doomu aadama it goo gis muy dem am na lu muy yëg waaye tëbul tëbër yëg ko te bu nee Cheikh Ibrahima Diop maanaam la li tax ñu naan Cheikh Ibrahima Diop muy Baye Abdou Rassoul Jigal moom mi nga xam ne maanaam maanaam moo tax nga am réseau connecté wu ci Seydina Mouhamad connecté wu ci Serigne tubaa connecté wu ci Serigne Sadio connecté ci mbooleem nit ñu baax ñi maanaam connexion boobu lan moo la ko may maanaam da ngaa jënd carte doo nga am connexion wala daa jëf da da ko neex rek ndax am na tey bëgg naa mbir ak feeñ ci ndax Cheikh Ibrahima Diop ndax dinay faral di gis naa man fekk naa nit am tawat ñëw wax la ko nga dogal ko tawat ba daal di gis naa it ngay dimbali ay doomu aadama ak xaalis ni mu neexee ci xol nga koy yëkkati di leen ko jox fekk naa it ñëw nit ñëw ci yow dina laaj wax la mbir te lam la wax amul nga yëkkati ko jox ko ko am ko ko seere mu mu génn nga ne kii kat li mu wax amul teewul lam la la lam la doon la jox nga ko waaye la moo waral loolu maanaam maanaam looy yëg ci Baye Abdou sol Digal ak Baye Abdou Rassoul Digal moom mi nga xam ne moo njëkk a nekk murit bàññi te murit ga ba muy jafe ci bu njëkk mu taxaw fa taxaw ci walazina jaahadu fii naa la nahdihim subulanaa wa inna laaha lama'al muhsiniin taxaw di jaxat ci yoonu Sëñ Tuubaa tey jii suñu borom taqale la ak moom barki dem nañ jóge fii ci ñaanam nga maanaam lan la defal ak maanaam maanaam ci ban réseau la yóbbu ak loo yëg ci moom waaw ak li tax ngay doog moo am ay jinne wala xam nga dañuy dañuy santaan yàlla suñu borom. waaw ndax euh, da koo xam ne mooy sama lépp fii ñu nekk ak fa ñu dem muy Baye Abdou Rasulullah xam nga dafa am loo xam ne dafa solo. Mhm. sama baay sama xarit ba sama sëriñ ba dafa doon wax naan ku ñaan ñàkk waaye boo jëndee yaa mhm. xam nga dafa am loo xam ne nii exemple daf ci doy mhm. te tubaab dañuy wax ni la meilleure leçon de la vie c'est exemple. xam nga boo xoolee ki nga xam ne mooy Serigne Touba. bu ne kuy Serigne Touba. dañ exemple mooy ki nga xam ne moom moo julli woon ci géej gi ba àdduna sosoo ba léegi Serigne Touba da moom moo si julli nga ne exemple Serigne Touba mooy nga xam ne moom la nasaraan yi jëloon ko yóbbu ko wiir wiir mu mucc. te keneen ku fa mos mucc rek kuñ fa mos a yóbbu rek suux nga. bu ne kuy nga ne moom moo taxaw ni inni Xaadimu Rasul wane ko ba ñëpp teg ci seen bët. kooku nga may laaj. ñu koy wax abdu rasul xam nga dafa am yoo xam ne jàngal boo xam ne dafa doy waar muy abdu rasulullahi xaadima rasulullahi muhammad rasulullahi bay abdu rasul 1912 ba 1927 ndox mu sëñ Touba jëfandikoo njaareem bay abdu rasul moo ko yenee Touba indil ko ba njaareem 1912 ba 1927 bay abdu rasul bokk na ñi ki ki mujjee gis sëriñ Touba moom ak sëñ Fàtta ko jóg ah. sëñ Modou Moustapha ba mu jógee Njaaxeen ba mu ñëwee ñoom ñaar la fekk ñu toog bay Abdou Rassoul Serigne Touba moo ko tuddee woon Abdou Rassoul tuddee ko borom sotti soteen mu laq ngënum Serigne Touba nag te xam nga waa Ndigaleen képp ku leen xam seen diggante ak Serigne ndax ñoom seen maam muy sëñ mu njibu jugal. Serigne Touba ba mu jógee Mauritanie ak fulkul maskul bu ñu ñëwee sëñ mu jugal moomu mu jibi jugal moomu. moo joxoon addee jëm mbaam Serigne Touba Serigne Touba fayee ko naaje kon nga xam ne moom mbiram leneen la. laq na ngërëmu Serigne Touba laq ngërëmu ay waajuram. lak ngeur mu mag ñi àndoon ak Serigne Touba nak ba ci borom Daaru Muxti yow ñaata at nga ànd ak moom and naa ak moom fukki at ak ben ndax fukki at ak ben yi nga and ak moom boobu amon nga moyen xaalis bo xamne daan nga jëf ci moom waaw xam nga bay adresse moo bëggaloon bopam ndax man ne yalla def ma dimbali premier jour bi ma koy gis domam la andal ndax doomam moo nekkoon ci sama entreprise ni ko wax Ibrahima Jigal ma and ak mom ak suñu benen xarit bu nekkon ci sama entreprise ni ko wax Pape Cissé ñu ànd am liggéey boo xam ne maar moo ñu ko joxoon bari ñu 30 hectares ñu waroon ko terrasser bi loolu amee ñu àndandoo di fa dem Ibrahima dama Ibrahima dañ jaar ci kër ga nga xamante ak sama waajur bu góor ba ñu demee fekk ñu teg añ bi waaye man li ma yéem ci añ bi bi ñu toogee di añ man Serigne Touba laa jàkkaarloo barke alxuraan bi ñu añee ba pare ñu génn ma ne Ibrahima mu ne ma waaw mu ne ko kii nga wax ne mooy sa waajur ma ne ko waaw mu ne ma waaw mu ko góor bi da leen di ndax de ndax man de ci boolu añ bi Serigne Touba laa ci gis ci ngoon gi bi ñu wàccee ibrahima digal dem na góor gi man de suñ directeur dafa ma ndax tey daal bi ñu génnee ba añ ba dem xamal nañu carrément que ni moom Serigne Touba la doon gis ci bool bi moom la bokkal jaay góor gi na leen kooku mooy sama doom te dina leer ñëpp bés boobu la ànd ak góor gi nag yàlla dimbali ma chaque suba teel su ma xëyee maag moom ñooy bokk ndekki damay ñëw mu jël kaas gi ñaanti teetu góor jox ma ma eggal hmm? ci ren maa nag ak mbaaxam ci la ma defaree ma kaas yooyu est ce que nekkul na kon moo moo tax nga am réseau ci moom am naa ci yaakaar ndax Baye Abdou Rasoul daf ma bëggoon ba yemaloo ma laa kenn ci kaw suuf amoon yërmande ci man ak cofeel na man aussi ko ba mu gënal ma lépp ci kaw suuf ndax man yàlla dimbali na ma sama tànk yi ku ko jaar ci suuf waaye bi may dox ba egg ci moom laa ne nag egg naa ndax booy seet Muhammad Rasulullah yàlla yemale la ak Abdou Rasoul boole laa ak Xaadimu Rasul mu teg la ci ba xamam Rasul wàcc nga Baye Abdou Rasoul loolu mooy sama diggante ak moom ma koy sant nag di ko ñaanal di wax yàlla moom suñu borom bi nga xam ne moo ñu bind yow mal xayaam bu ñu gëm lépp lu ma fay cëralee na ko jox may ànd rasul bi jox ma ko. est ce que yaa ngi fàttaliku maanaam wax ji mu mujjee wax ak yow. waaw xam nga bay Abdou Rasoul yàgg ne di ma wax ndax dañoo gis benn benn dañoo toog benn yoon màggal li may wax nii ay jabootam fekke na ko bi biñ wàccee kaamil ba pare mu jël parole da tey de ñeenti kàddu laay wax mu leen bi ci juutu mooy dama bëgg ngeen xam ne Ibrahima Diop gii suñu borom def nag mu nekk Cheikh al Islam. mbooloo mi yëpp topp mu leen ñaareel bi ci nekk topp mooy dina nekk jantug njolloor ñetteel bi ci topp mooy kuy gudd fan lay doon ndax man Abdou Rassoul lu mu dundi dina ko dund ñenteel bi ci topp nag mooy weccoo naa sama jëmm ak bosam hmm? Cheikh Ibrahima mooy Abdou Rassoul Abdou Rassoul mooy Ibrahima Cheikh Ibrahima nañ jàpp yéen ñi nga xam ne nag yéenay samay njabootu bopp képp koo xam ne bëgg nga làq sama ngërëm toppal Cheikh Ibrahima loolu Baye Abdou Rassoul defaloon na ma ko ay jamono li ma ci gën neex nag depuis at boobu la a màggale màggal gu jot su ma ñëwee may jox ka àll gi ne ma demal Serigne Touba nay xaar yàgg na ma wax ni dinañ ànd benn oto daf ma yàgg wax ni sa kër laay mujjee ñëw ci kaw suuf yow laay mujjee waxal yaa mu mujjee tiim te dinañ bokk benn oto nga yóbbu ma ba Touba ba ma koy wax si ay yaboo tam doon nañ ko fekke doomam mu ngi fii toog ci mbooloo ma xëy benn talaata seet si ko fekk lu jiitu loolu dama xëy benn jour ñëw fekk ko mu taxaw ci buntu këram dama xaar. ma ñëw ma Cheikh ne ma mu ne ma tey de sa kër laa ñëw ma tiit ndax am na lu ma junjoon waaye ma ne ah xam naa dafa dafa nam ma kër ga rek naa ko yóbbu bi ñu fekk boobu sama yaay wàccagul liggéey bi ñu ñëwee ñu toog ci sama saalu yaay jamono yooyu nag dama doon jagadi rek bi ñu ñëwee mu ne sama yaay jëmm ji li ngay xalaat ci moom la ma bëgg nga bàyyi ko ndax nit duñ koy yenn il faut ñu defal ko doog ko yenn loolu moo ko jàpp mais du dara ci moom day wérte dina fi yàgg daan na ko tey nag Sëriñ Tuubaa ci boppam ko doon wàcceel ay xéwal moom laa doon gàttal si daal di def ñaan ñu ànd dem keroog la gëj a génn tëb keroog. ma ñëw seet si ko ab talaata bi ma ñëwee seet si ko talaata ñu waxtaan mu am li ma wax loolu nag duma ko nettali ci télé ndax loolu secret la mbirum biir la ba ma ko waxee ba pare nag dama tàllal la sa loxo ma ñaanal la ba ma ñaanalee ba ma génnee ci la gëj wax ak doomu aadama ba àjjuma bi mu wàccee liggéey à 15 heures ba muy wàcc liggéey aussi na ma ko waxee woon maa mu jétti na ma waxee woon ne noonu lay demee aussi ci la demee. fekk li jiitu loolu une semaine avant muy wàccu dañoo ñëw ne ko bàyyi mu ne naam ñu ne ko sëñ Sine Maxtaande joxe ni digal ne day tëj almeeru mu ne ñu kër bu ci waroom dugul kenn du ko tëj ndekete boobu moom boppam lay wax ndekete moom gudd na fan de téeméeri at am ak fukk ak ñett ba pare nag li ci gën a kéemaan sëñ bi damay wax ne Baye Abdou Rasoul exemple la ah. am téeméeri at fukk ak ñett joxe dépense ka te kenn du ne la moo koy jox de Baye Abdou Rasoul amul oto yu daw amul woon ay gaal amuloon ay usine waaye lu mu soxla bu làmbee ci poche bi fekk ko. cent cent six ans la am tabax R plus 3 dërëm kenn demu ci pour mu jëlee xaalis boobu yàlla suñu borom sëñ bi dafa liggéeyal moo ne kon yàlla te loolu yàlla def. est que yow moom. Ah, xam nga bari na de yow. waaw moom dañ koy bàyyi ci xam nga sëñ bi ñun ay doomu aadama rek la ko pour wut martaba wala ñu wut doye wala ñu wut jàll ñun ay jaamu suñu borom lañ nekk ay taalibe Baay Abdu Rasul nekk taalibe Xaadimu Rasulullah dañu am ay bor comme ñëpp la fi mu nekk nii may wax yow am na ay bor yoo xam ne fay ma ko parce que amaguma lu ma ko fay waaye damay ñaan yàlla man lu nekk samay posé bu ma ko laaj julli laaj dama koy joxe parce que yàlla rek mooy maye te yàlla moo ne boo ma joxee benn ma fay la fukk buy joxe ngir yaa baax bul wut yaa baax man mucc mu ci dara sama yoon nekk si damay jox nit léegi mu génn wax ma lu bon sa boobu ñaatee ma jox ko parce que joxuma ko sama fi yàlla laay jox sama te xam naa yàlla ma fay te joxe gi may joxe bu fekkee nangul nga ma ko dama bëgg nga dencal ma ko ba yow mal xeyam nga doxal ma ko bay abdu rasul mu jox ko xadim rasulullahi mu jox ko muhammad rasulullahi mu jox ko yàlla suñu borom mu jéggal jullit yëpp dugal àjjana man loolu laa si jaay léegi suñu borom te naa ne suñu borom dama la suñu tubaab ne woon yaa maalikal mulki yaa man jalla am xawadin irham jamial wara yaa xaalil rada kon loolu nga wax leer na ndax damay gis ci samay gëstu ndax jëflante ak ay doomu aadama am naa ko xam ne ànd naa fekk moom mu am asma nga nga ne ko dina tàggoog yow mu tàggoog moom keneen ak keneen ak noonu maanaam secret boobu maanaam dangaa yor turu jinne wala dangaa yor turu yàlla wala dangaa yor yoo xam ne boo waxee léegi mu am man loolu lu man lu ma yéem la daal te bëgg naa ñii seetaan émission xam-xam yi xam-xam la dañuy waxtaanee xam-xam bëgg naa loolu leer ndax nekkul ndax looy tari rek la xam booy tari am loo ci teg waa ay sekkara la yoo xam ne du génn. xam nga dafa am loo xam ne nii yàlla faxaaloo li ma yubit la wax. mooy jël ko neexal def ci ku ko neex. comme naan ñun aussi bu ñu def dara duñ ko teg ci sañ-sañ nag duñ ko teg ci xam-xam aussi waaye ci lenn rek lañ koy teg. ndax Baye Abdou Rassoul moo ne moom Cheikh Ibrahima la ko daan mu ne ma lépp loo bëgg boo ko waxee boo waxee sama tur benn yoon yàlla defal la ko kon nag dafet que man làq naa ngërëm Baye Abdou Rassoul Mbaye lépp lu may ñaan rek dama koy jaar ci ngërëmam te xam naa ne moom ku làq ngërëmu xaadim rasul la te xaadim rasul xam naa làq na ngërëm yonente bi alayhi salaam làq na ngërëmu borom kon nag man su ma loolu Baye Abdou Rasul laa koy sante mais du ma damay wax ne moom wutuma baati wutuma doyo xam su ma xëyee damay costume bu rafet liggéey sol sama yére dem liggéey liggéey laa gëm comme li ci des nag mbiru suñu borom la ndax am naa droit jullit bu ñëwee ci man te duma laaj kenn lenn aussi nag quand même ba ñaan bu su ma dimbalee nit sax bu yàlla fajee ajoom bu ne ma sëñ bi lu ma lay jox dama naan ko lii jël ko nga jox ko nga nga santee ko sa borom ne man dërëm du ma ko laal waaw du ma ko laal jamais de la vie hmm. xam nga soo ñëwee wax ma sa soxla sëñ bi hmm. yàlla laay ñaan ne ko yàlla kat dama bëgg nga sukkandiku ci lii nga xam ne defoon naa ko hmm. te si jëmm rek tax wala ma defal ko nit yàlla bi te si jëmm rek tax dama lay ñaan nga fajal ko ajoom ci barke alxuraan ko kooku bu ko fa bu ko yàlla fajalee ajoom man ma ci yàlla lay delloo ñu ko. léegi fii réew mi toll ak réew mi ni mu dëgëree lan mooy pexe ngir ñu am xaalis. waaw xam nga sëñ bi dëkk dafa am loo xam ne moom lay doxee te Sénégal ku ko xam xam ne mag ñi dañ ci doon def ay sarax sarax yooyu nag lañ bàyyi sëñ bi te xam nga sarax dafa am solo xam nga yaakaar naa suñ première émission bi ñuy def. temps yooyu Ebola yëpp la la mën a dégg. waaw waaw dinañ ci ñëw sax. waaw feebar Ebola boobu. waaw kay dinañ ci ñëw waaw. comme nan mhm. xam nga li am importance. ci àdduna. Mhm. Sénégal dafa am sarax bu muy laaj. Mhm. yàgg naa ko wax ay nit. te loolu ki jiite rek moo ndax moo jiite dëkk bi. te maa ngi lay dogal ci alxuraan ci barke yonent bi alayhi salaam. boo ko defee balay 41 jours sa waay dëkk bi soppeeku. sa dëkk bi Sénégal dafa am lu ko ngànk dafa am lu fi mag ñi bàyyi. comme nan man nag wuti wuti sans flamme wuti ma ci banque ba wuti ma ci dara dëgg comprendre te am na ay kilifa sax yi ma ko waxoon pour wax ko ko mais ba biig sow di xam naa ne dafa ñu ko mais bu bëggee dimbali jullit sarax boobu bu ko defee maa ngi lay alxuraan balay 41 jours ay xéewal yu doy waa sarax wax ci émission xam nga am na loo xam ne mbiru biir la kenn du ko wax ci biti hmm. comprendre man nag sàkkuma sax pour gis ko mais bu yebalee ab kilifa wutuma ci dara aussi mm. bu yebalee ab kilifa ma ne ko nii at nii ak nii rek lañ koy defee buñ ko defee maa ngi lay dogal ci alxuraan ci barke Baye Abdou Rasoul dinañ gis dëkk bi changé léegi te duñ ah, xam la moo changé dëkk bi war naa changé ndax dëkk bi day wow na kooma effectivement kon émission xam-xam ne fii lay xewee mm-hmm. Macky mm-hmm. bu dee yaa ngi may seetaan wala yaa ngi may dégg wala lu tax ci yow yónneel boo yónnee koo bëgg gis ci réew mën nga ko gis ndax yaay président ñu wax la saraxe ndax dëkk bi kat daal di ndax soxla nañ ko ndax naataange ci dëkk daa bokk ci liy doxal mën a am réew taggkatu yonent yi jànkatu alxuraan yi jànkatu xasaay yi jàngalekatu alxuraan yi nekk ci bureau yi ah bu weer dee sax di saa ñuy làmbala dara na am dafa sa poos ndax da am solo moo tax fi naa dégg Oustaz Alioune Sall buy ñaan ne yàlla yàlla def suñuy poos dara kon def si suñuy poos dara lu am solo la kon euh, Cheikh Ibrahima Diop mu duggaat nag ci beneen maanaam beneen phase ndax gis nañ sa taxawaay ci réew mi moo xam wàllu gouvernement gouvernement bi gis nañ ne am nga ci ay connaissance ñi la ci xam daa bari ñi nga ci xam bari ngeen xamante maanaam gis nañu kilifa diine yi si di muxtaar sa wëllële la boo gis léegi da nga koy gis suñ Cheikh Thioro noonu Cheikh Béthio képp koo bëgg si kilifa diine yi rek da nga koy gis maanaam bunt yooyu nga am ci ñoom maanaam bunt yooyu nu mu demee noonu maanaam yow maanaam loo dem lijjanti la wala nu mu demee noonu. non xam nga am na loo xam ne doo ko lijjanti xam nga man dama la wax ni dama bëgg yonent bi mu gën a ma lépp ci kaw suuf sama njaboot yëpp yonent bi laa leen tuddee am naa juróom benn doomu góor ñoom ñëpp yonent bi laa leen tuddee sallallahu alayhi wa ñëpp ñoom bi mooy sama xel moom rek laa gëm ba pare bëgg ko sama xol la am lu ma jaayanteeg moom nag moom koy defal mais sëñ bi su ma bëggee yonent bi tarixa yi nekk Sénégal yonent bi la ñuy tax di wax il faut ma xarit ak ñoom mënuñu dara loolu par la force la sant naa suñu borom la ndax boo ma fekkee Touba ne fa laa dëkk waaye boo ma fekkee Tiwaawan ne fa laa dëkk may ñaanal bu baax nag sëñ di sama xarit di ñaanal Pape Malick doomu sëñ sëñ Bay sëñ sëñ ñaan sëñ Mansour yàlla na ko yàlla xare àjjana di xam ne mooy Maodo taawu sëñ Bay si Mansour ak Sidi Ahmad bi nga xam ne mooy jaatam ñu nekk samay xarit nekk samay wëllëre di leen ñaanal yàlla barke bi nekkoon ci seen maam ak mbóol ba ak surba yàlla na ko suñu borom def ci ñoom ñu barke alxuraan boo ma fekkee Ndiassane ne fa laa bokk ne xalif général bi sama xarit la loolu sëñ Moussa Diakhaté mii nekk te ngeen xam na ci dara ba ma fekkee yoof ne fa laa dëkk ndax Cambérène dëkk naa fa ñetti at suñ borom war na ma fa loo xam ne du ma ko nettali nit ci kaw xam na ko bu baax a baax a baax kon nag sëñ bi man su ma bëggee yonent bi ñi jiite tarixa yi Sénégal nekk fi ma bëgg yonent bi il faut ñu xaritoo man ala kulli alin mais nekkul lu ñuy lijjanti wutuma ko dangir dara mais xam naa ne ñoom xam nañ sama cofeel ci yonent bi alayhi mm. te dama lay wax leen ne tey sëñ bi nga noté lay dogu ci alxuraan képp ko am cër ci yonent bi alayhi salaam dinaa la xam ci zaahir wala ma xam la ci bàtte hmm. barke alxuraan billaahi wallaahi wa taala hmm. loolu suñu borom nangul na ma ko bi yonent bi rek mooy yonent bi bëgg yonent bi dafa doy lu bi boo ko bëggee mu bëgg la te bu la bëggee jeex na xaqiqatu ahmad yàlla suñu borom def ci yow hmm? secret ba secret ba lay def ci yow di ko sacré barke alxuraan loolu dogg suñu borom sottil ko billaahi wallaahi wa Mmh. sëñ bi secret suñu borom dafa kéemaan dëgg wax dafa wax leen huwa allahu ahadu xayru xayru musul jalaal li kam secret ahmadiya foofu lañ ko denc mu wax la ko tey te kenn du ko dindi nag nga dugg ci ixlaas gis fa gis fa suñu borom denc siru secret ahmadiya dama ne attention diggante yàlla ak yonent bi laa la wax seen diggante dafa kéemaan waaw sëñ Ibrahima dégg naa yow jàngoo dama la dégg ngay wax ay béy waaw xam nga mooy li ma la wax Baye Abdou Rasoul dana ma barke alxuraan mbootu alxuraan sidoo def naa ko ci yow te kenn du ko dindi maa ngi doog ci alxuraan lu ma ci bëgg a xam-xam ko kon alxuraan daal ni ma ko déggee leer sëñ bi alxuraan leer la boo liggéey la ko làq ngërëm boo liggéey la ko làq ngërëm leer boobu la ñu dem ko ci yow mu sotti ko mu sotti kenn du ko dindi loolu leer defuñu ko nag li may wax ni nag mm-hmm. waxuñu ko ngir tiitalu waxuñu ko ngir wut barke wuute waxuñu ko aussi pour nit ñi ñëw jébal suñu de ñun ay taalibe kese lañ waaye dañ koy def nag ngir santeeku suñu borom ci ngëneel yi ma defal ci bëgg gi ma bëgg Seydina Muhammad yàlla sax amiin bi jaay Seydina li ma la bëgg a laaj mooy gis nga ci fan yee ci ginnaaw France ñu doon wax ci mbirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man mi nga xamoon dëgg bëgg moom ma sopp noo gisee maanaam histoire boobu fi amoon li mu doon wax ci Rasulullah sëñ bi xam nga naafeq moo baaxul naa naafeq baaxul yonent bi bañ ko tooñee yàlla dana ko fayul xare Badar ñëpp dégg nañ ko pour pourquoi yonent bi xeex dafa am solo sëñ bi gis nga ngëm-ngëm dafa am solo kenn du ko fooy te nasaraan yi nag war a bàyyi suñu gëm ngëm ñu ñuy fooy ñu jullit yi loolu lañ war a bàyyi te loolu mooy dëkk sëñ bi dafa ñaaw yonent bi ñu koy caricaturé di ko wax lenn bi te képp ku ñu bind moo tax. te bi nañ waxante dëgg moo ne bu ñu waxul woon yonent bi dara li leen dal lu leen ci dal tooñ moo bi tooñ du gàll ak kon nag lu ci jëlee nañ ko gar lu ñu ci góobee rek nañ ko gar ndax ñoom ñoo tooñ jullit yi loolu dëgg leneen lu ci wax dañu wax leen neex bu dee àtte dëgg xam nga mooy lan nañ bàyyi jullit yi ñuy tooñ mais lu fa am lan la mais dañoo def élection yi jullit yi gagné ñu xeex leen jëlee leen fa mais Palestine ji li fay xew di ñëpp ci ñëpp ci teg seen bët sa waaye dama lay wax benn affaire Serigne Touba lu ko dal tubaab yooyu ko teg te gis nga nasaare yooyu fi nekkoon ba tey seeni sëñ ñoo fi nekk islam la ñuy xeex laa la wax islam lañ bëggul mu dem ci kanam li ñuy def nii yëpp xeex islam moo tax. politique yi ñu fiy indi yëpp di ko jaarale li di ko créer di ko def ci xale yeeg yëpp ba loi bi nga xam ne bi ñu fa bëgg a génne actuellement di wax ci njàngum alxuraan sëñ bi damay wax ne fii constitution bi ñu ko wax Sénégal Serigne Touba moo tax Serigne Touba alxuraan la jàng ñu nax. dëgg la buñ di ñu indil ay égalité entre les femmes et leurs dañ ñuy nax nañ bàyyi loolu. sëñ bi yàlla daf la wax ci alxuraan ne la nit ñaari kilifa nga sa yaay ak sa bu ñu la gërëmee yàlla nee na ma gërëm waaye nag jigéen bu xasee am borom kër borom këram mooy sëriñam mooy kilifa mooy léppam yàlla ne la bu gërëmee ma gërëm bu xarabee ma xar mais sama yow yàlla wax loolu ci alxuraan nga ne yéen ñaar yéen a yem dañuy nax lañ bàyyi loolu ku bëgg sang nag da nga koy jàmm yooyu nañ ko bàyyi toit yi dañuy nax rek sëñ bi loolu ñu def na toon nañ yàlla toon yonent bi toon jullit yëpp kon nag la leen lañ ci góobee rek nañ ko gar ndax ñoom ñoo toog ñun warul toog loolu mooy dëkk yonent bi sala yàlla yàlla fii ci moom jeex na ne ko maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa mm. jeex na teg ko fa kawe Sëñ Tuubaa ne Muhammadun afdalu lépp lu yonent bi lépp lu yàlla sàkk yonent bi moo ci gën bilaa taraddudin ci la amul dégg dégg ci la amul benn werante kon euh, Cheikh Ibrahima Diop euh, bi ñu ñëwee def ak yow émission fii tey euh, émission bi neex waaye jeexagut ndax am na ñoo xam ne jot nañ leen a seeti ñoo xam ne say wëllëree bopp lañ ñii say magu bopp lañ ndax kat dañ ne nit bu bu ne baax na ndax mbokk yaa ko wax te wax dëgg yàlla seeti nañ leen ñii di say am di jàmm ñii say ñii di say mbokk taalibe ñii nga xam ne ay tàggkatu yonent yi leen ñii nga xam ne say say say say maanaam say rakk leen say mag ñu jot leen a seeti ku mel ne El Hadj Diop ak Mamadou Diop ak Pape Digel Pape Digel moom mooy ki nga xam ne fii nga toog tey bay wax li nga yëg ci suñu borom ak Sëñ Tuubaa ka la ko xamal leer la ci moom muy doom ci moom mhm. muy bàyyi Abdou Rasoul jigéen doomam mi ngi fi dinañ ko jël ndax li ngay wax mhm. doomam fekke ko ak li nga wax ci moom lépp mhm. ak ak ak diggante way jur ak doom fiiraange gi ciy am nga mën a wax lii war nga xam li ngay wax mbirum suñu borom la wa anal fadla bi yadillahi yuti ma ne saw fekk nañ fekk ñu wax Mansour naawee moom ma tàggat yonent bi sallallahu alayhi wa la ak Serigne Moustapha Mbaye moom moom kenn dootu ko présenté fii ci réew mi sa dëkkandoo la sa wëllëre la ñépp xam nañ ko ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ma amit ci darajey rasulillahi la ko amee ci xéewal ci trang ci cofeel ci bëgg ci sopp ci lépp amee fekk nañ fi ñooñu ñëpp kenn ku nekk ci ñoom nag dinañ fekk la fa nga nekk léegi jël la su ko defee nga xam ne mu def ay ay ay ay ay shahada mooy ay seede ci sa jëmm ji kon ñu dem seetaani lool te ñëw ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad di jaajëfal suñu sëriñ Cheikh Ahmadul Xaddim Mbakke di ñaan ki nga xam ne mooy suñu bunt ci suñ tubaay di seen jeddaale Mbakke moom suñu mudu faati xëri suñu borom kàttanal ko doolal ko ba li mu bëgg a liggéey suñu tubaay suñu borom kàttanal ko doo ko defee ko ni mu ko bëggee danga maa laaj ci ki nga xam ne dama cee sawar a wax damay faral di wax naan du jàmbaari sëñ Tuubaa du jàmbaari seex si Jaaji Malik du jàmbaari seex na seex Saad Bu ibrahima jàmbaari lislaam la yàlla dana waxta waxtasimu bi xablillaahi jami'an wala tafarraxu tafaraxu ngeen jàpp ci benn buum te bañ di tàqali ko ibrahima xàmmewul tiijaan xàmmewul murit xàmmewul laayeen ñépp la bëgg lépp lu muy def yàllaa tax mu di ko def bëgg ñi nga xam ne tey ji dañuy jàng xasaayit yemul ci man yewul yemul ci alaaji Moustapha mbaay mi yi doon yëkkati kàddu gi kuy jànkatu xasaayit rek Ibrahima bëgg na la li ci am solo ba ëpp ci am solo mooy li nga xam ne tey jii dañoo ne ci ku xaw a yor suut ni muy def Ibrahima yoru jikko yooyu yéen jikko la yor muy jikkoy taalibi Ibrahima oyof na toll ante diis na ganit ndax daa yoru gi gone kii nga xam ni tey jii moo ko defar ba mu mel nii du du xale kilifa la. muy Baye Abdou Rassoul Jigal ci wet googu di sa gant geneen wet gi mooy lépp loo xam ne tey jii da koy sekk ak moroomu doomu aadama yaa koy mer yaa yaa koy merloo wante moom du la merloo benn yoon ñuy ñaan ci dara daraja yonent bi li ñuy wax nag yàllaa tax ñu di ko wax ndax yonent bi moo ne ma sayit naa illaa bi ma allim naa bu leen seede looloon xamul yàlla newaat ne man la yaskuru naas la yaskuru laa ku santul nit man yàlla dooma sant wante ñuy tagg yonent bi sant nañ ko ñuy jàng xasaayit sant nañ ko moom nee na awma xarit ñuy tagg yonent bi di jàng xasaayitu suñ tubaay ñooy samay xarit te ñun nag amuñu lu dul xasaayitu suñ tubaay ku ñuy bëgg ci ñu bëgg te moom nag daf ñu ciy bëgg teraanga bu ne mu ñu dinguñu ko defal ngir suñ tubaa kon dañuy ñaan ki nga xam ni tey ji mooy soppam ba di Seydunaa Muhammad mu téyel ko boppam aaral ko boppam yiiral ko boppam sëñ Ibrahima yal na yàlla defal la jàmm kàttanal la ci dara ji Seydina Muhammad wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikh Ibrahima daal moom sunu dëkkandoo la fii ci cité bi Zac Mbao soxnaam su baax si eh, di sama xaritu soxna kon daama di ko defal teraanga ju rëy suñu xamee nag yàggoon na sax waaye ki ma fi indiwaat bu ma gën a xamante mooy mooy El Hadj Malick waral sama teewaay fii te xam ko ci lu baax di yërëm doomu aadama di dimbil doomu aadama yi bu ñëwee Cheikh Ibrahima baax la nag ay njabootam ñoo ko jëkk a wax te mbir mi nekkul ci sant walla ay at wala tur te ki mu wax ni moom la wéeru te mu nekk baabu rasul jigal dañ ko ñaan bu yàggul rek moom li mu def ci moom war naa mën lu nekk kon ñoo ngi ñaan yàlla li ñu koy ñaan rek muy gudd fan ak wér yàlla fal ko cat waxumal teraanga ji ko suñu borom jox waaye li suñu borom def ci moom rek li mu baat mu def ci moom maanaam yërëm yërmande gi mu ak dimbalu def ci moom ak xam-xam bi ko yàlla jox rek man naa tax moo gën alal ji mu yor ndax moom am da koy bokk doomu aadama yi day jënd day may nit ñi ay terrain ñuy dëkke mu jël ko tabaxal leen ko ngir yonent bëgg yonent bëgg yonent bi moo tax ma xamante moom ndax ma mu ñu dani ma yow mënu woon bañ mënu woon bañ xamante maa yow ndax ku am cër ci yonent nañu xamante fii la ma ko wax jëflante ma na mbir mbir yoo xam ne du ko wax ci télé waaye daal ku yàlla baaxee ngeen ñi bëgg naa ñu bàyyi ko xel am nañu jëflante ak moom borom mbir la de maa la ko wax di ñaan yàlla yàlla bu ko cat topp mu dum lépp téeméeri at ci dara joyant bi suñu xol seet man kay li may réccu rek mooy li may yee nga am jàmm. Ibrahima de euh, sunu waajur moo sama waajur moo boole woon waaye nag damaa jàppoon ne waajur bi sax sama waajur la waaye bu ñu demee ba ci biir xam naa ne sunu waajur la sunu waajur la maa ngi koy seedal ci suba rek ndax sunu waajur de dafa am loo xam ne da ko daan mbo nu njaboot gi dañu ko daan wax. moo di fii daal la fi ne li ngeen fi gis daal li ngeen fi gis daal lu mu jënd la lu ma jënd ba andi ko fi la ku ci soxla tamit da jënd ndax jënd mooy li koy la cay neex mooy boo xasee ba jënd la nga jënd yaa ko moom waaye nag bu li liñ la may nag euh, ki la ko may man bu demee ba ngeen jote tamit bu ko neexee mën na caa mën na ko nangu wala mu sax wala mu waaye wala mu defaat ci yeneen pexe ndax moom fa mu jaarum ba may la ko moo xam ne war na faa mën a jaar pour nangu ko Ibrahima nag mooy li li mu am si digganteem ak Baye Abdou Rasoul moo di loolu moom lu mu jëndanteeg moom la ndax na mu ànd woon moom weesuwul euh, ni ñu ànd ak nit boo boo ñëwee ci moom la la nee ci moom na ngay def ba am ko mooy loolu suñu borom da ko caa téere dimbali maanaam muy góorgóorlu ci lépp lu mu xam ne lii Baye Abdou bëgg na ko maanaam Baye Abdou moom dox wax kenn bëgg naa nangam waaye moom suñu borom da ko dimbali woon ba nga xam ne Euh, bu ñëwee ci Baye Abdou ma ngay ma ngay xool ma ngay jéem a jàngat xol ba waaw fi toll nii tembe lan la bëgg maanaam bu génnee day wutu loolu ndax moom day mosul jàkkaarlu Baye Abdou Baye Abdou Rassoul mi muy mi nga xam ne mooy léppam mosul jàkkaarlu moom ne ko am naa njàqare wala soxla naa nangam saa bu ñëwee da ngay tàll loo xam rek waxtaana moom la waxtaana moom eh, yawe ko saa bu xëyee na dina ñëw ziar si ko waaw mu mel ne nag Ibrahima xay na ñu bari xëy na duñ ko duñ ko comprendre yenn saa yi ci anam yu mu ndax kuy wax ci yëg-yëg ak koo xam ne ni moom buy wax day jéem wut loolu muy li muy wax ci nan lay te wute tegtal di jéem a tegtaloo ci ay bind maanaam moom du ngeen mën a déggante ndax moom fi mu toll moom buy dox ci moom digganteem ak Baye Abdou moom ci yëg lay doxam digganteem ak Baye Abdou Rasoul di sant Xaadimul Mustafa di sant suñu ñaari waajur wér a wér a wér lu ñu laaj nga danga ci sawar a laaj wax ndax suñu ne baax dañuy laaj mbokk ya ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi te ñu dina bokk ci gétt gi Cheikh Ibrahima suñu wax ci moom day xaw a metti si ñun ndax dafa xaw a sori si ñun lool lool sama rakk la mais man sama kilifa la ci baati laa wax ak yow nag ndax kon boole meññ dafa am lu mu seede ci moom ma ngi ca barsàq te xam nga dina toll si jamono joo xam ne dafa am kàddu gi génn ci làmmiñam des fois mu naan képp ku làqul ngërëm waajuram perte na mais moom kenn pertul ndax dayam da ko gërëm bàyyam gërëm ko ba ni bàyyam nekk ci wàccaase woo na ko ba mu ñëw mu gërëm ko kooku du hasard kon din koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér ndax yàgga yàggam moom suñu njariñ la ñun ñi magam ndax Ibrahima xàmmewul mag xàmmewul rakk Ibrahima suma ma amoon soxla lox léegi léegi léegi suma ma ñëwoon ko nek Ibrahima dama am li dina mëna grand tar ma léegi wala li. su koy lebi sax dina ko ma andi jox ma te lu mi dugg su bangon dina ko yek tax man neena ko amna lo xamne din maka di ba yama khiyamat akbar duma ko netti ci ko suuf ku du mëna yow kese ak jëm jëm ko deewon ma rak lamay sama kilifa la kii jëm ji tok du jur nak muy doomu hal bi set 8 dëkk ca mbaañ doom famille jaltaa parce que nu rëy la bokk waajuram dëkk jolof di sëtu Alburi kon am na lu xam ci moom Ibrahima yal na ko yàlla lafal cat yàlla na sut ay waajuram fan te cat sax mënuloo ko jàpp barke Ahmadou Bamba billaahi am na ngërëmu waajur te maam su amee ngërëmu ju waajur su la neexee tëdd ci raay bi train sa du la jege. waaw kon Cheikh Ibrahima jot nañoo seet ñi nga xam ne ñooy say mbokk taalibe ñii di say mag ku mel ne El Hadj Diop Mamadou Diop ak euh, sëñ Pape Jigéen Mansour Nawel ak sëriñ Moustapha Mbaye ñooñu ñu ci ëpp ñooñu ma tudd ay tàggatu yonent bi kon sa bëgg yonent bi fii ko na fii tey ñu jël leen ñu fekk si biir émission bi par hasard ñu jël leen wane leen ñu wane seen yéene. ak seen bëgg ak seen cofeel bu ñu am ci yow ci ànd gi ñu ànd ak yow ngir jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. maanaam moo gisee maanaam noonu seen maanaam kàddu yi di wax ak seen digganteeg ñoom. waaw xam nga damay santaat yàlla suñu borom. Mhm. di delluwaat njukkal yonent bi alayhi salaam. Mhm. di dellu sant ki nga xam ne mooy Baye Abdou Rasoul ak ki nga xam ne mooy Xadim Rasoul. xam nga ñii li ñu wax nii dama ci bëgg. ndax adresse diw dafa bëgg yonent bi dafa doy ci adresse. te bala ñu koy xam nag muy Barza. te man ñoom ñooy samay xarit nag ndax man jàngkat alxuraan yi ak tàggkatu yeneen bi ñooy samay xarit te ñoom laa jàpp comme xarit aussi nag ak waxtaankat kat waaw ak waxtaankat yi xam nga kat yi ak tàggkatu yeneen bi ñoo yem ndax ñoom ñëpp ci yeneen bi lañu wax xam nga leneen li ci wees mooy ñi nga xam ne ñooy samay kilifa muy ki nga xam ne mooy El Hadj ak ki nga xam ne mooy Mamadou Diop man ñoom ñooy samay bàyyi actuellement nii ndax ñoom seen waajur moo wàcc liggéey ba man sama waajur wàcc liggéey ndax ñoom ñaar toog ñoom ñooy samay waajur kon nag dama leen di ñaanal yàlla suñu borom rek lépp loo xam ne martaba la ak lépp loo xam ne wér la ak kattan la ak sutura la suñu borom def ko si ñoom ci barke alxuraan karim te la nga xam ne Pape Diouf nag moom sama sëriñ la ndax waajuram mu góor moo nekkoon sama sëriñ te loolu du dañ ilaa yomal xeeb ma gën ko jàpp nag ndax lañ jàng alxuraan ndax moom kokki la nekkoon moom rek la bàyyi Abdou Rassoul jëloon ci ay njabootam yóbbu ko kokki ak jamono yooyu kokki ne mu mel envie su alxuraan la moom rek nag mooy ànd ak man sama oto xam la moo tax ma koy def ndax alxuraan bi nek ci dënnam mu ma ci maas mais am lu ma jëm loolu tax may ànd ak moom kon mom aussi dama koy ñaanal barke goor bi ak siroba ak leer ga yalla yalla def mu wacc ci ñoom ci barke fa te naa ko làq ngërëm waaye abdu rasul maa toog góor gi wax ko dama pa digal di and ak mi and ak yow làq na sama ngeerum barke alxuraan billahi wallahi wa taala te bay abdou rasoul bu làq ngeerum làq ngeerum serigne touba làq ngeerum yonente bi làq ngeerum yalla suñu borom moom nag dafa làq ngërëmu sëñ Massa Xil aussi mu ciy profité waale di ñaanal yàlla Mouhamed Niang nga xam ne mooy imaamu bari nga xam ne su ma xamanteeg moom ci loxo Pape Digal mi la ko jaarale waaye sëñ mataan bu kokki moo ko santaane ndax dama ànd ak Pape ñiy dem kokki sëñ Matar moo ne Pape fexeel Cheikh Ibrahima xamanteeg Mouhamed Niang limi ñëwé ko ko mu koy yembal ci Mouhamed ndax Mouhamed lu ko ñaanal su borom def ko kon Mouhamed mo ko gëna ñaanal yalla yok ay leeram mbotu alxuraan bi mu gëm ak barka ba ak suru ba yalla ko suñu borom saxal ci mom ci barke ba alxuraan kay yalla nak moy def lu ko neex sa digënté ñu Moustapha Mbaye moy li ko wax leg xam nga Moustapha su mu gisee muy bég surtout dem nak ci ñaan gi bu mu yëkëté kalamu dama daal ndax bay Abdou rasoul kalamu la bëggoon te Ablaye nak moo ko doon yëkëti mu ñëw génne ko ci éru Abdoulaye Niang loolu gisaayu bàttin Moustapha koo ko gis xaritu yonent bi lañ koy wax ma am lu ma jàpp ci téléphone am téléphone am ñaari numéro yi mujjee bii 66 la bii 92 66 muy Allahu 90 du Mouhamad di Allahu Mouhamadu te maa ngi dogo ci alxuraan saa ko wax seen émission ne ma man yàlla nëbbal na ma ci suru Allahu Mouhamadu man ci loolu laa bokk ña xam-xam nañ ña xamul xamul wax naa la ko léegi. ne yàlla dimbale na ma barkeel na ma am orange boo xam ne allahu Muhammadu lañ ci bind. waaw ah, bi nga seetlee bëgg nga nettali ko sa bopp xam nga foofu dama ciy ñëwaat tuuti dama bëgg nga vidé li nekk say poche jox ma ko addi mhm. ndax tey balay ngoon sama maam dinaa la defal loo xam ne lu kéemaan la mhm. ma jógee ci moom dem métutu na salaam fekk fa sëñ Béthio am lu ma doon waxtaan moom mhm. ba ma waxtaanee Cheikh Béthio ba pare bëggoon naa Cheikh Ibrahima ndax lépp ma wax nii ñu añ man ak moom ba ñuy joxe ba mu yëkkatee benn pomme lekk mu ne ma ndax doo jël orange mu jël orange da ko kon ma yóbbul ko xale yëkkati orange gis ñu bind ci allah mahamadou ma wax ko sëñ bi ne ko sëñ bi man ne daal am lu ma yëw mu ñëw mbiru dund sagal ñëw ci sa biir kër ma gis ci orange ñu bind ci allah mahamadou lii de lu doy waar la sëñ bi ne lépp mooy lii ne ma nag du ma ko jël ci yow ne xam naa ne lii yow la ko suñu borom jagleel te dama lay wax ne li jiitu loolu dama dem ci waaw ci benn kilifa bu mag bu fa nekk nga xam ne ci administration lay liggéey ba dem seeti ko mu yëkkati tableau boo xam ne kilifa moo ko may ñu def ci allahu muhammadu mu may ma ko dama lii yow lañ ko def ba sama waa kër gis nañ ko te yéen di jomb ne bala ngeen di dem moom leen ko ndax bii moom dama ci amul ndigal wane ko moo tax moom nëbbu ko kon man gëm naa ni ci allahu muhammadu laa bokk moom nag numéro nekk jeexee loolu loolu am na lu muy teg cofeel ga mu am ci yonent bi rek moom la ko yàlla misaal sëñ bi boo ko déchiffré 66 la lay jox ñu indi la asalaat asalaat ne la su ma bëggee dara innama laay koy adressé dama ne say aaju faju na aduna. sant yàlla ndax ñu koy te jàngoo. sant yàlla rek wala la la la la la ba Abdou Rasoul jigéen xam nga man sama lépp ba Abdou Rasoul dana ma loo bëgg suñu borom ko loo def ko man loolu laa gëm kaw ma leneen sëñ bi loolu dama ko gëm sama biir xol te loolu laay dund nag dama ko def ngir tuutaroo defuma ko commerce laaju ba kenn addiye ñaanu ma si kenn lenn lépp lu may def dama koy fii def fii sabiilillaahi wa rasuul dama la wax ne dëkk bi am na ay kilifa yoo xam ne am na lu ñu seq ñoom xam nañ man xam naa seq nañ lu bëree bëri bëri te mosuma taxaw wax ko ñoom duñ ko wax jamais te kenn duñ la mos naa seeti Ibrahima bu jox ko dërëm man xam naa nag ba keroog ma fiy jógee yàlla day faj samay aat ak nu mënti demee nag parce que yàlla moo ma man xam naa lebal naa suñu borom kon nag te dogul naa ko nag danaa ko maa lay togg ci Seydina Mouhamad fépp bu tàggkatu yonent bi di egg di nga fa te dina ànd ak wér nag ndax lépp lu nekkoon ci moom dina ko roc ci moom ci télé bi laa ko waxee dama bokk kenn ndax jàngoro ci ndigal lay dox boo juba borom ndigal nga la boo nga jàngoro bi taxawal mu taxaw te dama ne Moustapha li nekkoon ci yow suñu borom rocc na ko ba mu set. billaahi wallaahi wa taala kattanu Seydina Muhammad suñu borom rocc ba mu ngi noonu di ko ki nga xam ne mooy moom suuf aussi la même chose yonent bi rek la bëgg yonent bi rek lay tagg kon dem ne sëñ bi man yàlla desuluma dara boo àndee nii ànd ko sëñ mel ni sëñ Modou sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Modou Kéemaan Kéemaan ga nag moo ci doy ndax mu toog wane Kéemaan gi kon sëñ Modou na lay ñaanal yàlla yàlla def nekk nga nekk mag barke sëñ Saliou ak leeram yàlla ko sëñ borom def ci yow ci barke am naa kal ma yoon ca Muhammad Muhammadu Rasulullah na ma ma ma kama machal nujum mooy almaaw jëmm jooje moom mooy muhammadu rasulullah anta misbaaw sa doom a gën ci doom yi kul fanin famatas duru yi la andawi kala duwaaw sa doom yooye ñoom ñooy muhammadu rasulullah la kazaatu lee ومن اليا دما اسماء جمو جوجي موي محمد رسول الله لم تزل ينشل محمد في دمائر الكون تختار لك الماءات والباب صدم يوي محمد رسول الله basharan xawma abigal anbiyaw sa doom yooye ñoom ñooy muhammadu rasulullah te tabaxa wooy na ñëpp bëgg yoon ca la muhammad te tabaxa yoon ca la muhammad bigal usuur wa tasmo dik aliyaw wa badawa wa wooy aliyaw Cheikh Ibrahim yàgg ak bëgg Muhammad Rasulullah wa badawa wooy sama gërë gën ci géer li lil wujudi min karim karimun min karimin abba wooy kuramaaw jëmu jooge yam moy Muhammadu Rasulullah nasabul yom cala Muhammad tasabul hulla bil hulaaw xallada anu jow ma jow sa sa doom yooye ñoom ñooy Muhammadu Rasulullah حبا زائد وفار أنت في اعتماد الأسماء ومؤيدني سما جيرجن تجيني أنا بجمع كنا ومؤيد Cheikh Saloum Mbacké waaj al ujuudi fawqal daay Muhammad Rasulullaay xabla bi daa daay xudli muraada Sëriñ Bambay waaj yaa man afaada bila kiraay Muhammad Rasulullaay waskur xilaab mi wa wakkalaab mi yaay soppi xaadim ba sit baraay jëf ñoo ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi nga fi yëkkati moom daa bëgg rasulaay moo tax ma nga yëkkati di tur ay xéewal waaye lépp nag ci ak cant la ñoo ngi lay sant di la gërëm di ñaan suñu borom yokk sa taxawaay kon Cheikh Ibrahima Diop gis nga ni nga xam ne moom moo fi xew moom suñu Safa Mbaye yëkkati bi mu tagg yonent nga ba tur ay xéewal naa la bàyyi nga tàggatoo émission bi xam naa ne duuf ci nag bi lépp xajul ci cin bi kon naa nga tàggatoo ba incha allah ba beneen yoon ak émission bi di xam-xam waaw xam nga dañuy sant yàlla li may gënee sant yàlla Sénégal li nekk ci ay nit bëri na bëgg gi ma nekk yonente bi rek tax yàlla ci lii yëpp moo sedd sama xol ba tax ma sotti yàlla ci kàttanam mi nga xam ne moo mën te moo sañ moo am man Cheikh Ibrahima Diop ñaanuma ko nag waaye waaye Abdou Rasulullah moo koy ñaan Baye Abdou Rasoul moo koy ñaan ci li mu liggéey Xaadima Rasoul Xaadima Rasoul di ko ñaan ci li mu liggéeyal yonente bi alayhi salaam bi nga xam ne yàlla moo ko indi ne loo wax ma def yonente bi yàlla boobu mooy ñaan suñ borom di ko xamal ni dama koy ñaan képp koo xam ne sénégalais képp koo xam ne mës nga wax baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah yàlla jéggal la say bàkkaar ci barkew xalaat ma koy ñaan moom suñu borom ñoo ñooñu mu tudd léegi di ko ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk barsaq yépp suñu borom jëggal leen xetti leen xare leen àjjana ci barke Seydina Muhammad ñu koy ñaan moom moom nga xam ne moom rek mooy faj aaju ñu koy ñaan faj aaju jullit yépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may sant nag samay waajur ñi nga xam ne ñoom ñoo toog nii di ñaanal sama waajur jigéen di ñaanal sama papa di yokk ñaanal sama wasila ba di ñaanal samay soxna ak sama njaboot yëpp di ñaanal julliti yàlla yëpp di ñaan yàlla nag seen télévision bi yàlla ko yàlla boole ci télé yi gën a kawee ci barke alxuraan yéen ñi nga xam ne yéenay def émission yi suñ borom sàmm leen aar leen sutural leen ci barke laa ilaha illallah seydil kawnani wal aaxiri seydina abdullahi tabaraka wa taala ahlu badi dinullah lislaama dinullah ak kay baytu baytillah muhammadu luñ ba firdan ma laa ilaha illallah te ko wax moom yaa maalikul junal xaq mubin ak yaa alfata yaa ilu wa sanana an taxulan lan si wal jinni alallahi yàlla kasiban raqiban ci lu gaaw a gaaw a gaaw subhaana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalina walhamdulillahi lazi sanana wax jërëjëf sëriñ Ibrahima Diop ñoo ngi lay sant di la gërëm ci fekk si gii ñu la fekk si fii nga ubbi ñu see buntu ñu def ak ay waxtaan jàpp naa ne képp koo xam ne yaa ngi émission bi di xam ne tey jii jëlee ko dégloo wala nga seetaan ko di ki jëlee ay dina jëriñ kon mbokk yi ñoo ngi sant ñi nga xam ne ñëpp ñoo jàppoon ci liggéey bi ku mel ne Cheikh Ahmed Tidiane euh, directeur directeur programme ñoo ngi santi maanaam Kébé moom mi nga xam ne bu bu ma rafetee ba ñëpp man maa mën a xool moo moo fa jaar ak di sant euh, di sant euh, nu mu tuddati. Euh, Cissé Cissé tur bi laa xaw a fàtte moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm ñoo jàpp ci liggéey bi ba bu yembee nit ñi mën ko mën a seetaan mën ñoo mën a gis man ñoo déglu ba mën a jariñu ci kàddu yi ñoom ñoo ko waral di sant it sama wëllëre yi nga xam ne ñoo may jàppale ñi nga xam ne ay téyeer lañu di ma solal yenn saa yi